Thank you. Lutte TV ak Leewtoo TV lépp lamb la tey ñu ngi jàkkaarloog Bébé Diouldé fii Grand Dakar centre culturel bi mu jëm ci combat lundi le 22 avril digganteem ak Dame Sène borom daje beneen paquet Diouldé maa ngi lay bëgg. Babacar ñu ngi lay nuyu. gannaaw bu sant yàlla jul ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di nuyu waa Sénégal di nuyu monde di nuyu waa Grand Dakar di nuyu waa Bawal di nuyu présence yi ne fi yëpp di nuyu Sidi di nuyu sama mbokku mbër yi xam ne teew nañ fi waa Bawal ak waa Grand Dakar di leen ñaanal jàmm ku ñu meen suñu grand caat Tafa Bambara Ndiakhom euh, gi Kewel. mu tudd sax yegsil ak bépp mbër bu fi teew rek ñu lay nuyu bu baax a baax waaw mbëru Bawol yëpp surtout waaye ko di Cheikh Mbaba seen taxawaay rafet na ci man trop di nuyu suñ koor su baay ba da sung di ko ñaanal jàmm ak suñ nijaay bala baay bala di ko nuyu baax a baax di nuyu suñ tontoo ku yàgg ci ñun ba ñu door a débuté ba léegi ñoo moom Baye Tafa ñu lay nuyu bu baax a baax di nuyu Ibrahima Diouf di nuyu di nuyu sama doom baay yëpp bàyyiwuma kenn ak sama nijaay sama famille doom day maa ngi nuyu ñëpp waaw xam nga fi nga yow yéen nii yéen ñëpp waa nuyu presse bi yëpp fi teew yëpp waa di nuyu waa parcelle 1 ba 26 di waa koñ am nga seen fay gis naa ni ñu taxawee ni ma taxawoo sama waa fans club bàyyiwu ma kenn li nga dalee bi ba ci membre bi a ndaw ñëpp maa ngi di sant di leen gërëm nuyu waa parcelle 1 ba 26 bàyyiwu ma kenn 100 pour cent parcelle sama waa écrit bàyyiwu ma kenn jël nuyoo bi nga teg si malam ñaani moom nga xam mooy suñu mag chaque jour bu ñu moom mi nekk moom ñuy gis bu baax di sant ñeneen ñi mag yi Mamadou Ndiaye famille général suñu kilifa maa leen di sant bu baax malam ñaari sama gars yi fi teew ñoom Mbaye ñoom Aline Diouf waa écrit bi yëpp bàyyi ma kenn Père Manga waaw Père Manga Xaarim Père Martin sama entraîneur amu fayam boole sama boxeur Pape Diop si amu ñu ma taxawoo bi ñëwee lundi ngay bëri ak ki nga xam ne mooy bébé Diouf di tombe ak le 22 actuellement temps fi mu nekk lan lay waaw la ñu war a bëree si kàttan yàlla waaw wax ñu pare nañ war nañ 100 pour cent ñun làmb ñun dinañ mbirum ndaw du préparé day pare ñun chaque jour pare dañ am toujours pare chaque jour dañuy pare du combat kese dañuy xaar bu dul combat bi dañuy dem ci àll bi du bëri ci man xaaruma combat taxaw combat bi naa àll bi jël fa jël fa jël fa ay làmb biñ jël bii renouvelé sama alliance bi téye ko moo ma teree génn mais lu ko may man xaaruma combat ci damaa leb samay supporter dama leen amel bor war leen koo fay bor bi lan la borub xaalis la war a borub yére warub dàll waaw dañ maa topp gunge ma gunge bu rafet def mobilisation bu baax dem ma bëree yàlla suñu borom xañ ma mu amee leen ko war leen ko fay le 22 incha allah. ci ko leen ko bëgg a fayee. waa daam seen ñu naan daajil beneen paquet mais paquet du am conteneur du wàcc lépp laay tëj paquet du ci am la fa maa koy def incha allah. dajeel gladiateur la dañu gis ci Bébé Diouldé souvent excès de confiance daf yàqal bis te ki ngay dajeel bërekat la li woon ci ginnaaw euh, jaaxaluñu ndax euh, ay xale lañu woon di teel teel xamuñu luy làmb waaye tey yeewu nañ bu baax a baax ku ñam victoire ñam defet ñam masinil làmb jaaxalutu mun naa tey ay mag lañ ci làmb. te wala la war te samay supporter a. xam nga ko bu baax. a wax si la bërekat la moom daa ko bëre. gëm nga loolu yow. waaw moom dàq bëri. ngay bëre ku la dàq bëri loolu wóor na. waaw moom dàq bëri man damay jëm fekk jëm fekk jëm dàq bëri man nee naa dàq bëri man mënuma damay jëm xale laa waaw ci yoon laa nekk dama nekk samay père ay manga père manga di gërëm bu baax taxaw na ci combat bu baax. mu mel ni mbër mu jóge ci ay défaite la boo xoolee combat bi mu dogo ñàkk yow nga teglante ay victoire est-ce que loolu wóor na ci yow nga jël mbër mu mel noonu. lamb moom ñi am défaite ak ñi am victoire bu ñu bërewul kon lamb neex. lamb noonu la lamb mooy doxee noonu parce que man jóge daanaa defet bu ma jógee defet dama bëri nguuram ci duwaar yàgg naa bëri nguuram jóge ci defet loolu dara lamb la ku nekk da ngay entraîné li nga liggéey yaa xam boo ñëwee appliqué loolu si borom may defal li mu la defal lu lamb moon ñam naa defet dem naa laaj naa ko démb comme dàq bëre bi parce que am na ñuy wax ne da nga ko dàq bëre am ñeneen ñoo xam ne dañ ne moo la ëpp doole yow yaa ngi moom kan moo ëpp doole waaw gars yi ñoom ñoo yor seen bët di analyse ku nekk sa favori ku nekk sa favori lamb bu nekk gis ñi far fi ñi fee amaan tamit ñooñu ëpp ñu leen xam-xam ñoom ñu kon xam naa loolu wax noonu am na fu ñu ko teg mais am ñoo tam la dàq xeex de waaw mu naa nekk mun naa nekk lamb lépp ngi ci mun na ma dàq xeex mun na ma dàq bëre mais man li ma lay xamal man xale laa Babacar te parcelle da yow ci man yaakaar combat bi dafa am fu ma ko teg est-ce que Pape Dame Sène mën na daan bébé julde kurul bébé julde ah, non bébé julde man bébé Diouldé ñoo bëri ñoo gën a dansé foofu. kon moom a dansé pour yow. a dansé bébé Diouldé mu dansé sama kanam. Ah. man ñi may kontaakal. comme a dansé comme kan. ñi moo gën a dansé bébé Diouldé. six ans moo mel ni xale gis naa fi tóor ay mbir ñu daanu de. loolu wax moom bàncax rek a wax nga jëf nga leen di fayee mais man li ma seetlu si Dame Sène bu ma koy seetaan ba tey dafay yab mbër mu ne da ko doole wala mbër mu ponkal parce que ay façon jëllam est-ce que seetlu nga ko bu baax a baax yaak ñi nga àndal ni muy bëree walaay laa mu jaaxaluñu ku yeewoo kibaaru Cheikh Mbaba doomu kaani kaani rek lay mën a doon kaani du meñ du meñ Dakar du meñ leneen kaani rek lay saf ku ci mel suñu baay bëri sung ak suñu koosu Cheikh Mbaba Espagne ñu koy nuyu baax au passage ak suñu grand jaaxum ku nekk ñoom ku ne bëri la jaaxal mais am na ñuy wax ne Dame Sène dala dàq bëre parce que dafa am ñoo xam ne dañ ne sa combat yi nga perdre maanaam ci côté bëre bi day am lu des ci sa te daam seen ñu bëri dañ jàpp ne moo dàq bëri bébé julde yow loolu loo ko noo ko gisee daam su mu nee bëri duñu jaaxal ku ci kontaan ku mel ni ay suñu bopp nag mais bëri jaa dara jaaxaluñ ci yaa daam ku dàq bëri wallaay maa dàq bëri foo teg loolu bilaay maa dàq bëri foo ko teg xañ na nag lamb moom ah, li naan li duuf ci nat li duuf ci ndag li ci nag wi xawi si cin li lamb kenn mën ta wane li mën ngay wane li nga mën leen rek nga daanti ñi ma bëri ñu tuuti laal ne cofal ñu daanu aha jour si nag laay wane sama bopp le 22 inshallah rabbi parce que moom boo xoolee fi mu nekk nii dafa teglante ay ndam ay ndam yu garaaw a garaaw la teglante maanaam gëj na daanu daam seen nekk xale boo xam ne daal comme ni la ko bur géew laxe léegi gala jateer la xam nga mbër mu mën a bëri ngay bëreel te bébé julde waaw loolu jaaxaluñu ñu ngi ànd ak doom nday azan ay ilimaan ñoom maas ñëpp ñu ngi ci jàpp ci wàllu musique bi ay Ibra Diouf lépp ñu ngi ci jàpp dara jaaxaluñu suñu dëkk ndondal ñu leen di nuyu baax a baax a baax waa Joal sama nijaay ilimaan yu maa ngi leen di nuyu bu baax a baax bawal baaw ma fenn Grand Dakar na di leen ñu génn mobilisation ñu feesal isaat ñu daan mbaa mbaa wóor na ci yow mbaa loolu mënoo ko xam mënu laa def lu mel noonu yow ko. kan si du ma xam ne la waale waaw xam naa ne maa dàq bëre Sénégal yëpp xam nañ ko maa dàq xeex maa gën a ñeme xam nag suñu borom a koy wax man li ma war ci kàttan yàlla dama koy def liggéey naa ak samay entraîneur bi nga xam ne gëm naa ne ku bébé jëlee su ma téeroo yëpp kon moytuwoo ci moom dara amul lenn lu may sóoraale moom su ma amee lu may sóoraale ci moom ma teg sama ngeen ba toog ba seet leneen gis naa démb temps yi bool bool seen yaram daa tàng dañuy daan rek. waaw seen yaram daa tàng maa leen di féliciter ñoom ñëpp ñoom ñoom victoire yëpp bool bool yëpp maa leen man bool ma fa cër. fan ci bool ak noo ko amee. bëri na Sarr tàngal ma ko tawee sa boobu foofu dafa am cër bu mag. fa may bokk wala. ay kilifa laa ñu lay ñaanal ñu may taxaw. ku may taxaw ay kilifa. yi itam am lu ma seetlu wala lu ñu seetlu sax parcelle daa mel ni taay yi naqari na de boo xoolee dafa di bëri na de. waaw loolu moo la maa ànd yi ñàkk yëpp maa leen di wax naa leen di place lamb moo demee noonu di leen ñaanal seen projet sori si dafa leen tam mais bis mënu ñoo dépassé parce que école mag laa nekk père Manga ma wooy ak père Martin kon situation bi su ma la déggee yow yaa ko bëgg a déggante incha allah di woo sa mbokk gàj la carrière bi gënoon a brillant gis waa Grand Dakar bu daan génn day mel ni mbër mu mag a mag mu daan génn mais ñu gis daaw ak ren est xawul wàññi tuuti say supporters mais walaay samay supporters toppewul ma victoire toppewul ma defal dañ maa bëgg te yàlla tax wallaahi lépp lu ma am dañ ciy boole gëm yàlla te yàlla suñu borom moo ñu la may moo ñu xam dañoo gëm ne moo ñu may incha allahu rabi la 22 aha waaw waaw li fan yu la nañu gis nañu mooy qualifié numéro 2 wulli 2 daan na bërki dem bu yàggul bool bool dañoo jël beneen élan bees waaw ku say grand xaalal yoon moom fi nga jëm day leer ñoom samay grand frère lañ xaalal nañ ma yoon daan nañ di leen wax félicitation yàlla na leen ndami jik incha allah le 22 damay daan to soobe yàlla am na leen lu ma seetlu gis naa fi Tafa ma Bambara gis fi caat mu mel ni ki diggante boobu kon dëkkandoo la wala da ngeen koy def ni ngir rafetal wala lu xew ci diggante bi daal walaay Grand Dakar amuñu xaar ma yàlla wax dëgg yàlla ay caat booy baam tafa booy bambara ñoom ñëpp benn lañ billaahi ak ñooma ak ñooma tudd benn lañ wax dëgg yàlla dañ may woo téléphone di ma conseil ma bi ñu def yàlla communication moo àggatu ñoom wala aussi amuñu jot rek du leen jaabal dara walaay ay nit ñu baax lan aa may wax daam seen sa baat bu mucc xool ko ci biiri bët ndax yóbbante galgal ubbu làmb waaw damay waaw ah, au passage damay nuyu waa Bawol yëpp nag waaw di leen wax combat seen combat la fu ñu mel ni Bourndi nga ma dëkk Ndiène Sirax euh, Mbewaan Ndorong Nguy si Caajaw Kër Julde Kër Maar bàyyi ma fenn Mbombay Ndondal ba Fisal Mbaaran bàyyi ma fenn li commencé jaag ba ba Ndondal maa ngi woo ñëpp combat bi ñu ñëw jàpp ji yàlla suñu borom may ñu ndam. waa daam man damaa amee samay supporter bor te wolof Njaay nee na ku lépp jëf. fay ko wax xamoo li la waar incha allah suur si li ñu wax dinañ ko def. am na looy moytu ci moom. wallaay moytuma ci moom dara li mu andi dinaa ko dégg te lu mu andi xajul ci moom. leer laa leen combat mën naa diire wala yàgg wala mu gaaw. waaw yàlla nag mooy dogal moom. waaw yàlla lay dogal pare nañu lépp wàllu entraînement def nañu lépp ak ku mel ne sunu course euh, Max Colobane di ko nuyu au passage ak DJ maa ngi nuyu baax waa Salba. door nga fi mbër mu daanu est-ce que kii mën nañoo xaar suul le vingt le vingt et un loolu le vingt deux loolu am. waaw nee la yàllaay dogal yàllaay dogal yàllaay dogal yàlla dogal rek incha allah rab dinañ di nuyu sama nijaay njaayum bu baax di nuyu waa marché Tilène mairie jaaykatu jën yi jaaykatu oor yi jaaykatu tisi surtout man nag jaaykatu tisi xam ne ci bokk di leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa Kasoor di nuyu ñëpp waaw di leen bëgg bu baax a baax di la ñaanal jàmm suur si nag yàlla suñu borom may ñu ndam ñu féetoo ko kontaan ci yow waaw bëgg naa ci yéen waa site bi fi ñëw yëpp kontaan naa ci ñoom bu baax a baax a a baax kontaan naa di waaw xale bu rafet bi di ko ñaanal jàmm looy wax commune Grand waaw commune Grand Dakar bi di leen woo bu baax a baax ku ci mel ni yaay Ndeye Sali Diop ñu koy woo ci combat bu baax a baax Jean Baptiste Diouf monsieur le maire lay woo bu baax a baax si combat bi nga jàpp ci di woo euh, sama nijaay Mansour Diop combat bi sa combat la nga jàpp ci bu baax a baax suñu yaay mari ñi restaurant sopp sëñ Fallou maa lay bëgg bu baax Grand Dakar gépp bàyyiwuma kenn biscuiterie Grand Dakar ñaari tali bi yëpp yëpp mafia bi yëpp jaageen xateet ba mee sar ba mee fal bi jëm kenn na mu nangu ngaa xeex ak bébé julde ngeen ci dangaas waaw yàlla baax na bu laajee xeex dañuy xeex ak moom pare nañ lépp bu laajee xeex dañuy xeex ak moom bu laajee bëre ñu bëre moom pare nañ lépp parce que kuñ kontaan ñu may kontaatal ñoo doole bi bu julle fuuf kii nii damay bëre ñoom bëre dóor amul takk gan sama tuñ gis ngeen tojee man a ñoom damay takk takk duñ takk gan dañuy bëre bëre dóor bëre dóor la ñu entraîné parce que lamba jëm géew bëre dóor a fa am amul contact sans sans sans dóor dañuy dóorante gis naa fi ay mbëru parcelle ñoom góor ay ñoom Ousa numéro 2 mbër bu ñu gëj a gis ak ñoom Ibou Laye mu mel ni daal parce que lépp dañu génn ngir jàppale. waaw est loolu du pression tamit si Dame Sène. waaw loolu mu nekk pression ñoom ay borom baax lañ waaw parce que maa leen di bëggee. Goro Sogo bu baax jàppal nañu bu baax maa ngi remercier bu baax seen gis naa seen taxawaay yeneen mbër parcelles yi ñëpp maa leen di a wér parcelle dañoo solo combat bi parcelle bàyyiwuma kenn 1 26 waa marché Dior aw ma seen fay gis naa seen taxawaay waa Kambaga Kambareen marché bu ndaw 25 gis naa taxawaay baax a baax a baax. waaw di di woo Père Ba. Père Ba maa ngi woot Père. monsieur Moussa maa ngi lay woo Thierno Bokum Mama Gaye Ousseynou Kane sama président di nga ñaanal fi mu nekk waaw yàlla baax na di woowaat waa parcelle Père Manga combat sa combat la ma waxoon gëm naa ko te gëm naa ne yaa ngi ci combat bi sa la lépp miy ma jox may lekk di ma jox may naan par manga di may jàppale bu baax yi bëri fan yi ñàkk maa ngi leen di encouragé na lamb moo demee noonu dimanche tam di nga dajji beneen paquet incha allah si kat lundi sax laay wax di nga dajji beneen paquet loolu nga laaj an sa dégg man paquet lay doon non ma xeex amateur yi kontaan mais Dame Sène dafa am dafa am lu ko dal kii wax si bi moog mambal la avant combat bi loxo bi damm est ce que yéen ñi ngi ngeen lool parce que xeex bi ngeen ba tax loolu am est ce que yaa ngi koy sóoraale. man dama am kilifa. dama bàyyi may livre yeneen livre bay xeex ci géew xamaa loolu la rek mën na dal ku nekk di ko encouragé. naan lamb cuune ngay bu fair play la ndax amaana bis boobu xam nga yaram ma tàngoon mais man per manque moo ma yóbbu ci làmb per manque moo ma yóbbu ci làmb per manque moo ma yóbbu ci làmb léegi lu muy tàggoo ñu koy suivre ci Sene News Dakaractu Lutte TV ak Leewtoo TV looy tàggoo waaw di sant site internet yi parce que ñu déplacé wu yëg seen matériel ñëw fii seet ci ma ñëpp Babacar yan ma Jamaïcain Bokar yéen ñëpp maa ngi di bëgg a waa Dakaractu waaw di leen wax ni kontaan naa waaw gis naa taxawaay bi parce que lii luy jëmal làmb kanam la wax dëgg yàlla kontaan nañ trop macha allah di woo waa parcelle nañ ñëw jàpp ci sama professionnel yi moom leen fàtte baax Daouda Mbow maa ngi woo Aline Fall maa ngi lay woo Pape Abib Gueye bi borom Norvège maa ngi koy baax Racine Coly borom Nice maa ngi lay ñu jàppale bu baax si combat bi si koñ bi lañ ay Moussa Mbow leen wax ni ñëw jàpp ci ci kay waaw Habib Gueye comme sama fils la Habib sama fils la gis nga mooy borom Norvège waaw noonu la demee bëgg naa waa écurie Manga yëpp amu seen fay waa Île de Saloum sant naa ñëpp di ko dalee Jifir Jonwaar Ñoojor Faria Diofior Fandem maa ngi sant bu baax waa Fandem waaw gànjul gànjul yëpp maa ngi sant. mais message message bi nga bëgg naa pour supporter yi jëm stade. waaw supporter ñoom ñun nañ bis. parce que sama koñ boo xoolee koñ ambiance la bokk naa koñ bu ëpp bokk na parcelle koñ yi gën a populaire waaw di leen wax ne gars yi nañ def nañ daan def rek waaw nag boo fekkee dem ñëw jàpp si tike yi maa ngi di wax nañ jàpp si tike yi tuuti Ndiaye waaw baax na jaajëf loolu jërëjëf ba tey dafa nekk di la ñaanal ñu génn ci jàmm salaam damaa mënul nag mais su ma mënoon incha allah rabi duñu fa fanaan tey jii di la ñaanal yàlla suñu borom mi xam ne moo mën lépp mu jëlee leen fa di nuyu waa Ganaar Dakar gi yëpp bàyyiwuma kenn kenn maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax surtout Ilimane France sama doom baay maa ngi lay nuyu di la woo ci combat bi nga jàpp ci bu baax a baax a baax jaajëf kontaan naa bu baax